yëkëti kàddu ci li nga xamne mo xew ci aduna tay muy li nga xamne am nañu koy def ci aduna di ñaawal rasulullah sallallahu alayhi wasallam te mënuñ ko nak na inna kafaynaaka al-mustahzi'in suñu borom moo wax ci alxuraan kon loolu jërte sa xalaat yuriduuna li yutfi'u nuurallahi bi afwaahihim ay yuriduuna an yutfi'u nuurallahi bi afwaahihim والله متم النور الا ان ويأبى الله الا ان يتم نورهم ولو كره الكافرون كون نيوم لول نيهو لين سواي مونو نتي دار كون ناني خامني الاسلام سوني بروم موكو ييكتي غارنت غارنتل كو بوفامي تام كين مونو نتي دار وجعل كلمه اللسان كفر السفلى وكلمه الله العليا كون لولو ناني خامني جيرتي جيرت خلات جير ñoom ñoo koy def nag la ñuy def du dellu weesu ndax naka jëkk nag euh, suñ borom wax na ko ci alxuraan ba tey walan tarda anka alyahudu wala nasara xata tatabia millatahum te ñu itam fas yéenuñ ko def ba àddina tukki mooy liñ ñor rek mooy lislaam rawatina fii nga xam ne fii nga ñu fekk di Touba Serigne Touba léppam di rasulullahi rasulullahi gënaloon ko léppam itam وما أقول أنت دي وحني محب محبتي المختار سيدنا حب المغانية والأهلين والولد دمي وأهلي وأولاد الفداء له عبدا خديما له مسكانا لسندا وخات الفنان خدي وقاية لرجل المصطفى عن شوكة وحية وأقربة كون لولو كيف هي كارسين تبارك آه، ورنغا نك فداء war ngaa nekk ci di défendre l'islam di défendre rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax ko ci loolu nga xam ne Serigne Touba daan ko def ci diggam rasulullahi sallallahu alayhi wa ndax ndegam moo waxoon ne sama lex bii laa koy lalal ci suuf ba génn dëkk wala lu koy nur wala jaan wala lu ko jege du du du jege rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muhammadun xayru man yamshi ala xadamin muhammadun xayru man lillahi qad sajada kon Serigne Touba mboolem lu ñu tagge rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba ci gën a yéeme wa huwa akmalul wara loolu doone sëkk wa huwa akmalul wara xalxan wa xulxan zahra wal mithlu xattu lan yura wala yura fi chemi kon loolu nañ xam ne ñoom luñ gën a xeex lislaam rek suñ doon dafa gën a yëkkati kon loolu rek laa ci doon am lu ma ci jeexale di wax ñëpp na seenum xel dal ci xam ne noonu lislaam yooyu yi nga xam ne mosuñoo dañ ci di jéem xeex lislaam saa suñ xëyee di gën a xeex lislaam rek lislaam di gën a yëkkati ndax ñoom ñun dañoo nekk ci dëgg ñoom ñu nekk ci ak neen te alxaqu thabitun wa amal batilu in ala fa saahiqun wa saafin kon mënuñu am dëgg mukk ci kaw li nga xam ne mooy lislaam kon nag ñun ñëpp itam nañ jël suñ jëm ak suñ lépp def ko ak njotu ci rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fas yéene dox ci képp koo xam ne yaa ngi jéem ngir jéem màbb la doonte doo ko man waaye la ñu ca war nag ci doomu aadama war nañ ko def look noonu lislaam bi bañ xam ne laal nañ loo xam ne waratuñ ko laal te gëm naa ni itam ni àdduna sëpp maasa ju ci du ko naqaru boo léegi bala ko kenn defaat dana ko xawal baax